jërëjën jëf mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun euh, tey ji nag ñu fas yéene ñëw ak yéen ci jataay bu tënku rek ci ay simili yu néew jëm nag ci bis bi nga xamante ne bii moo di màggalug daaru xudus màggalug daaru xudus nag bu ñu ko déggee di bis bi nga xamante ne bii ci la fi ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba bàyyi ko dem euh, wuy suñu boroom ci Zahir gannaaw. ba mu liggéeyee liggéey bu am solo boobu ci atum 1927 nag ca njaareem euh, suñu borom dogal lu ni mel ñu feggoo nag ak ñenn ci ñoo xamante ne bii euh, ñi ngi fii ci euh, Touba Argentine di fi def yëngu bu am solo di ko defal Serigne Touba ku ci mel ne Serigne Mor Talla Sall ak Serigne Dame Cisse ñu jox kàddu gi nag Serigne daam su ko defee mu dikkal ñu ci ay soññe jëmale ko ci bis boobu nga xamante ne bii moom la ñuy amal at mu jot tam dëppoo woon ak ndigalu Cheikh Amadou mi nga xamante ne bii moo njëkk a wut sëriñ Touba. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen mën di nekk di leen ziyaara bu baax ci weeru tabaski gi ñu jóge Aïdul Adha mubaaraka di sant yàlla bu baax di jiital ci nuyoo bi nag ak ziyaara bi saahibul fadila sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wéer ak njabootu Serigne Touba gépp ginnaaw loolu ñoo ngi ziar bu baax eh, kilifa gi nga xam ne moo toog toogaayu Cheikh Moustapha al Karim muy Cheikh Ahmadoul Moukhtar mu yàgg fi loolu te wéer ak njabootu Karim gépp xanaa bu ngeen gisee jotaay bii rek ak taxawaay bii fii ci kër Serigne tubaa gi mu mel ne ñu ngi taxaw ak jëwriñ Daaru Salaam Serigne Mortala sàll di jëwriñ ci Argentine waaye di jëwriñ ci Daaru Salaam ak Serigne moor Joxaane mi nga xam ne moo fi teew ci Argentine TV ak mbokki jullit yi fi teew yëpp mu mel ne dañuy waajal rek euh, ndigal ndigal loo xamante ne Serigne Touba joxoon na ko Cheikh Moustapha al ci bis boo xam ne bis bu tedd la mooy isrina muharram ren nag mu fekk nu fii incha allahu taala ñu ciy fàttali suñu bopp di ciy fàttali bépp jullit boo xamante ne yaa ngi li wër Argentine ak li ko wër um, ni ñu ko baaxoo defee rek incha allahu taala bu weeri feeñee rek dana mën a xam bis bi incha allah waaye li ab woote la boo xam ne fàttali la boo xam ne daa ta ñàkk ñu koy fàttalante ak yéen mu jëm ci bis bu tedd bu màgg boobu nga xamante ne rasulillah sallallahu alayhi wasallam daana ñaan sun borom ne ko na nga def bis yi gën ci man mi bis bi may dajeeg yow noonu la ko cheikhul xadim radiallahu anhu doon ñaane ba yàlla defal ko ko mu muy asrina muharram di fukki fan ak juróom-ñeent waaye di ñaar fukki guddi la cheikhul xadim bisub ba la fanaan si Touba euh, ci Cheikh Moustapha defoon ca mattam gu réy ga ak fitam wa ba euh, euh, yabale ñu andi cheikhul xadim fii ci pàkk bii nga xamante ne moo ko gënal ci pàkk yëpp moom Cheikhul Khadim ginnaaw loolu nag ca la joxoon Cheikh Moustapha al ne ko bu bis bi delsee nan ma na na nan ko taxawal maanaam euh, fàttali ci euh, ñu di ci jàng alxuraanul karim moom Cheikh Moustapha waxoon ko ne ko nan ciy jàng alxuraanul karim ak euh, xasiid ak jës bu ak muwaahib ak muqaddamaat ak miimiya ak salaatu ala nabi ba fajar moo waxoon ne bis boobu képp ku fa fanaan yàlla sunu borom jéggal la say bakkaar kon bis la feex la bisub yërmande la bisub ngërmande la kon ñoo ngi ci soññ suñu bopp di ci soññ bépp jullit bépp taalibe Serigne Touba foo man di nekk euh, euh, ci àdduna bi rek ñu bàyyi xel bis boobu incha allahu taala xam naa bu weeri feeñee rek danañ xam bis bi incha allahu taala xam naa ci yeneen jotaay yi danañ ko ci mën a gën a leeral baax baax waaye li ab soññee la rek bu jëm ak wàccaay woo xam ne jot nañ ci ndigal ci sëñ Ahmadul Muxtaar ngir ñu waajaat ni ñu ko daan waajale incha allahu taala ak bokki taalibe yi nekk foofu yëpp rek ak fu ci waay man di bokk rek ndax fédération diwaanu Daaru Xudoos ba fa nekk ñoo koy taxawee ndax diwaan bi dafa lë dafa lëkkale mboolem buntu kër Cheikh Moustapha yi kon ñoom ñëpp ñu ngi ci soññ moo xam waa kër sëñ Moustapha al Karim la ñu ko sëñ Moustapha Ndiagne moo xam waa kër Serigne Mbacke Madina la ca bopp ba Serigne ba mbali ak waa daayira ba waaye moo xam buntu kër Serigne Cheikh Waalo la moo xam buntu kër waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ya fa nekk mooy buntu kër sëñ Modou Moustapha yëpp naka jekk nan ko daan taxawale rek incha allahu taala moom lañ ko fas yéene taxawal waaye nag ñu koy teg nag ci njiitul euh, fédération ba fa nekk muy a Yaxooba gi ndax xam ngeen ne moo fa nekk jiitu Serigne Touba moo fa nekk moo fa jiite liggéeyam Serigne tubaa ba lépp luñ ciy defit ci ndigalam lañ koy defee ak sëñ ba Ñang man toftal ca wetam ak mboolem waa fédération bi rek ñu ngi leen ci woo di ci woo mboolem fu daayira nekk rek te aju ci buntu kër Serigne ñu ngi leen di woo ci inscrire xaram ci wooteeb Cheikh Moustapha boobu waaye di wooteeb yàlla muy wooteeb ngërëm ak tawféex kon loolu rek ab soññe la ñoo ngi leen ci euh, soññ bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla sunu borom ñu fe yegg ci ak jàmm te daje ceeg ngërëmul Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ahousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki julli di ñoo ñëwaat di leen nuyu di leen ziar bu a baax di am mbégte mu rëy ci jataay bi nga xam ni moom lañ amal nii bokk ko ak suñu mbokk mi nga xam ne moo di Sëñ Dame Cissé di suñu jëwriñ di seen ostaas muy soññee bis bu am solo muy bis bi nga xam ni moom la dënmal xam naa bu weer wi feeñee incha allahu taala ci la ñuy xam maanaam bis bi nga xam ne ci la ñuy màggal su ko defee comme noonu mu ko waxee rek bu ko defee ñun ñëpp ñu bokk waajal ko te xam ni bis la boo xam ni moom ni ko Cheikh Moustapha doon wootee ak ni mu ko doon soññee rek ñu fexee ko defee noonu ndax buñ gisee buñ xoolee dañuy gis ni at mu jot aussi daan nañ ko taxawal ci façon taxawaay bu rafet boo xamante ni bii wax di yàlla ñun mbokki taalibe yëpp ñoo koy ànd te waa Argentine wax di yàlla ñoom ñëpp maanaam dañuy bàyyi xel bi su baax a baax di ko taxawal di ci liggéey liggéey bu am solo boo xamante ni bii mboolem fédération bi yëpp ñoo leen ciy soññ su ko defee ñun ñëpp ñu bokk bàyyi ko xel ndax comme li ci des bëreetut moom bu ñu bàyyi xel bu jàllee tamit aussi màggal Tuubaa gi nga xam ne moom lañ si muy 18 safar su ko it ñu bokk bàyyi ko xel moom it xam naa incha allah comme ñoo ngi fii ci Sénégal dañ fexe ba incha allah bu gënee jige yaakaar naa bu fekkee aajo woon ñu def ci ay soñe yu gën yaatu comme jotaay bi incha allah maa ngi siñ daam si def ay soñe yoo xam ni mooy gën yaatu su ko defee ñu man di ko jàllale ci Touba Argentine TV bi di gërëm nag mboolem mbokk yi nga xamante ni bi ñoo ngi teewlu Touba TV di gërëm suñ góora mi nga xamante ni bi wax di yàlla moom it liggéeyam ak ay taxawaayam ci eh, information yi am na solo ñoo ngi ko refee lu baax a baax di nuyu suñu mbokk yi xam ne ñoom la ñu àndal jotaay bi kon xam na comme waxtu wi xat na am naa dañ ko yamale foofu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Moustapha yaa neexa àndal dal nga xel wa man nga ruy fi àggul woon jébal sa baay wa mat gumba yi boor la fañi te dal fanoo mboolem jirim yeeg baa yooyu ay jaay Cheikh Moustapha wamat gumbay bool la fa ñi tegal fanom mboolem jirim yeeg baa yooyu ay jaay hal fil wara man sakka anal Moustapha warisal xadima wilayatan do moo di baay fal mustafa bi fadli wa bi wa jamalihi wa jalali ahlan ngaay ya ahlan ñaaxeen ñaq leen Seex Mustafa ñaaxaan leen bi kalaami soga ñaaxi ngaay jërëjën jëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñu doon bàyyi xel ci Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taamu gi ngeen taamoo ànd ak Argentine TV saa su ne di gërëm Serigne Gora sekk ci taxawaayam ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ngir yaatal njàngaleem Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci àdduna wërngal këpp rawatina ci réewi Argentine yi waaye tamit euh, ak mboolem ñi nga xamante ne bi ñoom la bokkal liggéey bi mbokk yi kon lii benn jataay la woon boo xamante ne bii dañ leen ko doon jagleel rek ngir fàttali bis bi nga xamante ne bii moom la ñu jagleel Cheikh Amadou Moustapha Al Karim jagleel ko Serigne Touba mi nga xamante ne bii ci atum 1927 ci la fi bàyyi ko ci zaahir wuyu ji suñu borom ci njaareem suñ Mouhamadou Moustapha def ci liggéey bu am solo gannaaw santaane Serigne Touba yi nga xamante ne bii dénkoon na ko ko muy lu am solo ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp leen di daje ëllëg ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.